asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi dellu siwaat nañ fii ci seen émission ci la bokk euh, comme ni ñu leen koy baaxaloo defee chaque dimanche bu nekk euh, tey moom dañ leen tànnaloon ay poñ yoo xamante ne bëggoon nañ ci waxtaan xam nga lu ci demee que ni euh, faux usage de faux bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko depuis bi couvre-feu bi amee bëgg nañu waxtaan tamit ci discours président de la république ci 4 avril bi bëgg nañu waxtaanee tamit xam nga ci wàllu loi d'habilitation bi nga xamante ne moom la ñu voté léegi tey jii man damay wax li ma xalaat ci loi d'habilitation bi man pour man daanaka coow li sax da ngaa jarul xam nga parce que loi d'habilitation boo xamante ne ñun voté nañ ko bu yàgg xam nga bu dal jël bi da kaa jarul xam nga parce que yow déjà yow boo jëmee jël benn benn parti comprendre la fal ko présidence jox ko majorité à l'Assemblée nationale xam nga ne loi bu fa jot a yóbbu xam nga day jàll man dama comprendre quoi coow li yëpp coow li ñu doon guddal wax yooyu yëpp xam nga pour lan la woon quoi xam nga ak situation yi ñun Sénégal fi ñu toll xam nga nu ñu nu ñu nu ñu gaawee ci affaire yi tamit xam nga man affaire daf may jaaxal quoi su fekkente ne gars yi dem nañ xam nga ba commencé di ci di ci wax yenn wax yu bëri ni man daal comprendre ma quoi. président de la république moom moom moo am majorité assemblée nationale mais comme li nga wax situation dëkk bi fu mu toll nii ah jarul ñu naan ay loi d'habilitation parce que président may nañ ko ko parce que moom moom dëkk dafa am nu muy doxee am ay charte am loo xamante ne ni moom moo ko tënk comprendre nga parce que président de la république am na yenn décision yoo xamante ne bu ko naree jël force force force force dafa war a jaar assemblée nationale pour ñu accepter ko yenn décision yi comprendre nga léegi nag comprendre naa mm. mais situation fi mu toll comprendre président warul war dañ toll moment boo xamante ne warul jël décision comprendre nga muy tardé parce que dafa war a dem assemblée jaar fii jaar fii jaar fii raison pour laquelle mu ne dañ koy voté loi d'habilitation juste non man coow li ci ginnaaw loolu laay wax coow li xam nga ku nekk di wax ku nekk am na am na coow kay xam nga coow li xam nga coow li opposition xam nga problème bi coow li moo ko Sonko la xam la te Sonko fu mu nekk yoon la mu nekk fa Macky fu mu nekk yoon la mu nekk fa président bi fu mu nekk yoon la mu nekk fa parce que benn affaire am Sonko dafa gis ni jaru ko xam la parce que tamit réew jox jox la lépp tranche yëpp bopp beeg tànk beeg lépp nga jël ko comme am la Macky Sall dafa gis ni moom loolu moo mën gaawal liggéeyam mais Sonko dafa nekk gis nga nu mu tudd opposant am nañ sa kon jaratul woon ñuy demaat loi di utaat beneen loi ko ci teg xam na euh, parce que tey parce que tey Sonko tey bëgg na gis tey tey bu bokkee ci amee du mën contesté dara parce que moo bokkoon ci biir loi bi comme am la kon moom rôle am mi ngi koy def ba léegi Macky Sall tam mu ngi koy def Macky na tamit pays bi tôt ou na nekk en moom loolu la jàpp xam affaire yi moom virus la boo xamante mooy lu gars yi dañuy xeex koo xamante ne ko chaque instant affaire yi na grave mën na wàññeeku ko ba temps yi sa affaire yi nga ngi sant yàlla mais mënoon na gën a pire tamit xam na léegi nag dëkk am na fi am bu du assemblée nationale du kii maanaam ñëpp ñëppay ànd ak yow xam la ñëppay ànd ak yow te Macky Sall dès la woote opposant bi ne ko ànd nañu ak yow loolu moom mu Sonko gis na ni moom loolu doy na amatul woon leneen lu ciy teg parce que dem di voter ay loi di kër kër pour lan quoi pour gagner lan di la wax man xam nga lan laa ah. nekk di la wax ni nekkul Sonko kese parce que ak ñeneen ak ñeneen xam nga du ñooñu kese quoi mais dama ne la man lan laay wax man ne man man wax dama ne la man pour man coow li moo ko jarul woon nga xam nañ ne loi d'habilitation boobu bu ñu ko xasee ba yëkkati bu ñu ko yóbbee assemblée nationale day jàll comme lettre à la poste kon wax ju bëri jooju guddal jëli la maanaam mënoon nañu économiser seen énergie pour leneen. non mais son parce que loolu noonu maanaam. yow da nga yow son des fois mel ni yow da war a def xam nga en cas de li ngay politicien mooy dooloo jur boobu noonu politicien bu deful politique bu defee politique wàcc na bu politisé dara wàcc na mais politicien kese de dañ si wax loolu du cadre cadre bu la même société civile bi ñëpp a ci wax loolu laa la du cadre politique de loolu loo xamante ne moom moo tënk sa réew waaw loolu la comprendre nga affaire yi nekkul nekkul cadre de politique kese kese gis nga comme comme comme li nga wax sànq moom laa leen moom laa leen doon jéem a junj ma ne leen instant yi nii situation bi nga xamante ne moom la dëkk bi toll parce que am na ñoo xamante ne dañoo foog que ni Macky Sall le fait que ni loi d'habilitation bi ñu voté ko rek xam nga ne prérogative yëpp na priorité moom lu ko neex lay def alors que affaire yi dafa am ay dafa am ay limites hmm. dañ ne ko dans le domaine si wàllum wàllum covid 19 li nga xamante ne day touché covid covid 19 bi kese kese kese kese kese mm. loolu noonu loi d'habilitation bi c'est strictement limité à ça mm. comprendre mais nag comme li ma wax am na yenn décision yoo xamante ni yenn décision yoo xamante ni lu ay décision phare la yoo xamante ne président de la république mënu ko jël mm. sans pour autant mu jaar mu jaar biir assemblée nationale donc instant période yi bu ko assemblée gars yi di si débat parce que loi bu duggee assemblée nationale yoon yi muy jaar pour gars yi voté ko xam nga lu mu la dafay bëri te tolluñu foofu comprendre donc yoon la yoon la loi d'habilitation bi instant yi ni fu ñu toll Macky Sall demandé ko. moom laa lay wax mu jàll non non. mu jàll comme yow coow bi ngay wax coow li ñuy wax Baba Jibi coow bi ngay wax noonu loolu mënu si ñàkk parce que am na ñoo xamante ne dañoo yaakaar ne dañuy ni moom Macky Sall bénéficié wu loi d'habilitation bi rek comme instant yi nii ñenn ñi ñu ngi ciy xalaat ay troisième mandat comprendre nga yooyu yëpp mën na ci jouer affaire am na mais moo tax ma ne la moo tax ma ne la gis nga ma defaral la entre parenthèses ne la c'est limité am parce que c'est limité strictement ci wàllum covid 19 wàllum économie wàllum santé attention loi boobu loolu loolu ngay wax ne c'est limité est-ce que c'est c'est c'est vérifié c'est c'est limité parce que loi loi la de. waaw mais loi non loi loi loi la non limite boobu est-ce que limite boobu. am na xaaral ma ñëw parce que loolu la ñuy ñaan yàlla ko affaire Covid 19 bi bu bu bu bu jeexee. bu jeexee loi boobu est-ce que. du du nekk à la faveur de Macky Sall. on continue ko. loolu noonu c'est dafa am durée durée bi te comme li ngay wax noonu est-ce que c'est vérifié ou pas loolu c'est bien vérifié ndax man dama def ay recherche dama def recherche yi ba pare comprendre nga ma gisal ni loi d'habilitation bi c'est strictement limité ci domaine bi nga xamante ne ça dafay toucher Covid 19 du 3 mois léegi yow président de la république comprendre nga comme suba suba suba mu ñëw xëy ne ma man comme que may nañ ma loi d'habilitation boobu noonu man parce que damay dugal beneen benn am benn benn projet de loi boo xamante ne ni wala dara daal loo xamante ne ni daf may defalal troisième mandat wala truc du genre instant yi noonu parce que loolu noonu bu amul bo mënul bokk si mënul bokk si projet de loi bi nga xamante ne moom la mooy loi d'habilitation bi c'est strictement limité ci wàllum xeexu Covid 19 bi kese. voilà. dafa nekk ci benn place boo xamante ne ne dafa bari ay tali mu ne yow nga xam ne ni foofu lu mu bon bon am na balu du 2 milliards wala wala 2 millions 3 millions 4 millions et ne loolu da war a dem nga. nga nga wax ko nga commissaire bu la jege bu la gën a jege nga wax ko nga bind ko nga ne ko maanaam sama magasin lii ak lii lii moo fa nekk dama bëgg ngeen ma bàyyi xel su ko defee ronde bi bés biy jaarate mu mun a jaar foofu noonu xolaale te loolu non te loolu loolu loolu dafa doon lu baax xam nga loolu xam nga loolu dafa doon lu baax xam nga loolu dafa doon lu baax nit ñi nit ñi suñ ko doon def gars yi di ko gars xel su boobaa ëllëg ci biir naa ko lii ak su boobaa assurance bi ci boppam day mën a noonu moom ngay dem nga avertir leen yaa ngi déggulum lax ñoom si seen bopp nañ ma baal si kàddu gi mais ñoom si biir dafa bëri ñoo xamante ne ñoo dàq ñoom moom ay ah. policiers ñoom ñoo ko sàcc te nekkul benn nekkul ñaar loolu moom moo nekk moo tax la suite instant yi ni affaire dafa complexe doo doo sax comprendre fenn fu nekk secteur day métti di nga ay problème noonu noonu la secteur beneen secteur sécurité am problème ba tax nag am na yoo xamante ne am na yenn secteur dañu war a protéger dañu war a protéger doo leen ko barke yàlla griyo Sénégal dara musu wax man dama lay police bi matul dara fenn matul non non non mais non d'accord ma d'accord ma Sénégal lañ nekk dañu ne émission bi ci laa bokk ci la bokk c'est parce que du Sénégalais ci du ñëpp boo jëlee Sénégal no defal naa tu as plus de 54 pour cent yi nga xamante ni jànguñu tey bu fekkente ni yaa ngi suivre maanaam sa régime maanaam sa gouvernement nu muy doxee par rapport assemblée lenn rek la ñuy dañuy tegante xel maa la gën a jàng maa la gën a maîtriser constitution maa la gën a maîtriser maa la gën mën a maîtriser droit duutoon de fii nga dégg nga fi lu nekk tailleur de la constitution lu ne loolu lépp leen la affaire la la jaayante intellect la jaayante ni dangeen dem def des des hautes études universitaires boo jëlee moitié Sénégal cinquante plus de cinquante pour cent jànguñu. ndaxte loi bi avant ñu koy voté euh, libellé bi ci boppam libellé bi ci boppam moom moom moo njëkk a posé question ndaxte dañoo njëkk dañoo normalement libellé bi dafa waroon euh, constitution dafa wax ne ne sur le plan sécuritaire sur le plan économique sur le plan sanitaire foofu la yem ñëpp d'accord mais ñu dem ba ci yàgg ministre bi ci boppam libellé defaraat beneen libellé boo xamante ne da koy bindal nag maanaam de tout ordre. maanaam lépp loo xamante ne ne non déglu ma wax la su loolu tax ma ne la loolu loolu moo tax suñu xel di ci teey ndaxte dafa bind de tout ordre tout ordre boobu doon nag bu mu bind moom moo tax yow lépp loo xamante ne si boobaa su boobu jàlloot xam nga yow kii mu ngi koy wax fii nu mu sotti euh, jibi mu koy wax fii léegi mu ne boobu su xasoon ba jàll rek maanaam day mel ni ne Macky Sall day doon buur ndaxte day am day am day am pouvoir yëpp yoo xamante ne ci durant trois mois yi rek lu ko ci neex mun na ko ci def sur tous les plans nag mais comme ki boobu noonu jàllutoon tout ordre boobu noonu bés bu xasoon ba jàll su boobaa Macky Sall li muy am day bari léegi ba tax na nag comme que ñun euh, defaat nañ beneen beneen kii euh, changé waat nañ libellé bi defaat ci mu ñun ñu ne ko mu changé mu changé ko ba pare bindaat ci sur le plan sécuritaire sur le plan santé sur le plan économique yokkaat sur le plan juridique léegi na gars yi ne waaw pourquoi ñu koy jox sur le plan juridique or que nag moom euh, l' appareil juridique moom yor na ko pare ndaxte ministre de la justice il du président de la république tey jii nii suñ demee ba mm, sur le plan juridique boobu noonu suñ ko impliqué duwoo ko ci biir nii su boobaa Macky Sall sur lépp lu ordre boo ba mu munti jël sur le plan juridique rek day appliqué wu mun na li mun na libérer qui que ce soit mun a mun a tëj mun a mun a tëj qui que ce soit mun a def lu ko neex ci plan juridique te loolu du am ordre bu muy ras euh, bu muy rendre compte à n'importe quelle personne. Ah, loolu tax suñuy ah, xel tey ji a. waaw déglu waaw bisimilah mais a wax mm-hmm. comme par exemple li nga wax dëgg la de. comprendre nga na si wàllum sur le plan juridique. mais sur le plan juridique boobu noonu luñ si munti dolli dañ ne la. ça ça ça ça ça concerne dafa war a limité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 comprendre bu naree libéré comme par exemple dañuy dañoo joxe exemple rek bu naree am benn koo xamante ne da war a libéré wala ay ay ay ay ay ay ay modification yoo xamante ne da ko war a def ci wàllum loi bi ici ay déggum la ça doit ça doit dafa war a limité wu ci ci wàllum lutte contre le Covid 19. comprendre warul warul warul warul prérogative am warul dépasse ne warul nekk au delà de ce warul génn cadre boobu. am rek. lépp loo mënti dugal même soo dugalee maalum feebar wala leneen ak leneen rek day appliqué wu c' est l' état d' urgence c' est le président de la république qui prend les décisions léegi nag même su jëlee boobu loolu tax ma ne la dafa euh, yàlla moo ñu moo ñu baaxee sax moom moo ñu jàppale sax ba dugaluñ ci ak ak politique yi ñu ci dugal ak ak opposition bi ba moom moom ngañ ñi ne lii nii waruñ ko cee dugal moo tax dugaluñ ko ci léegi nag mais fu mu toll nii ça s' applique trois mois lépp loo xamante ne si trois mois yi nii Macky Sall def na ko rek sur euh, si Covid 19 la dañ ko appliqué suñu xel nag mun nañ ci mun nañ ci mun nañ ci rafet njort ndaxte Macky Sall ku nekk xam ne ne euh, mu daan coronavirus bi nii moom moo ko moom moo ko moom moo ko solo. léegi nag bés bu ko daanee leneen li ci tegu nag ci ci durant trois mois yooyu su boobaa day dem de assemblée nationale. waaw a gàlgal saako xam nga la mooy li ngeen doon wax rek ñun si seen terme juridique yi si boppam moytul ma seen point yi ñoom seen bopp man xam nga la ma jaaxal man man leen moo ma jaaxal man man xam nga la jaaxal eh, ay man da ngay gis kenn ku wax benn loi projet de loi ki ñëw teg ne la lii c'est kii par wax ci wax wax wax wax ba ah, moom mooy dëgg si topp ne la kii lu mu wax du loolu indil la ba pare ñoom ñëpp man seen point ak man fan laa fan laa doon waxee man fan laa doon waxee si jarul bëri wax man soo gisee may jarul bëri wax c'est-à-dire man dama ne la dëkk bu normal dëkk bu normal maanaam du am député wu PS député PDS député APR député lii député du peuple mooy am léegi ñu demee ba nga xamante ne ñun Sénégal yëpp conscient nañ que ne ñun ay député yu partisan la ñu am ay yoo xamante ne naan man maay géwélu kii wala man maay bàyyi faalu kii lu mu wax dama koy def comprendre nga jël benn parti comprendre la yóbbu ko président jox ko lengee ne ko yaay gouverner ba pare joxaat ko majorité à l'Assemblée nationale comprendre la kon lu mu la teg yow jarul bëri coow parce que li ngay coow mënu si dara. mais son mais son loolu laa lay. son loolu laa lay expliqué man pour man sama sama gis-gis sama gis-gis. xam nga bu fekkente ne waxante nañ dëgg wax li nga xamante ne moom moo fi nekk. comprendre nga saa waay mooy dawal yërmande ne lii coow li bëri na xaaral ma calmer coow li ba rocc lii mais bu ko ci bàyyi woon sax bu jàllee assemblée nationale day jàll. léegi nag man nag lancer boobu noonu mais wax joo mais wax mais mais da see baax. jëf yooyu noonu da see baax gars yi di si wax noonu da see baax ay Sonko li ñu ne moo tax may la moo tax moo ma wax la man la ku nekk joué nga rôle bi nga war a joué. xam la Sonko il a joué son rôle te mu war a joué moom la joué. comme moom la Macky a joué moom am na ngeen ku nekk xam la da xool ni ngay avancé moom loolu moo ko xam la il a essayé de la faire Sonko tamit li ma ko arrangé il a de la faire yoo xam nga tey yoo xam nga tey benn affaire am xam nga bu defee li nga la Sonko instant ma ci lu mu mënti def ñëwul génne sénégalais noonu li ànd naa xam la moo tax may la ku nekk sa rôle nga def comme am la donte même bu nekkul politique sax mais ku nekk sa rôle nga def maanaam Sonko lii lañ ko xamee quoi dafa delluwaat nekk Sonko Macky dafa delluwaat nekk Macky loolu moo war a doon Sénégal quoi. xam nga la moo li nga wax loolu moo war a doon Sénégal man d'accord moo quoi parce que bu fekkente ni ne dañu ne président de la République parce que pour être présidentiable da ngay am programme am looy looy nga ne da ngay xeex dara pour sa askan pour ton peuple. mais yow nga dem nekk président de la République di def yenn yi di teg ay je ne sais pas ay pion di pousse pion comme ki ni nga ko waxee kii nekk si Baye Fallou diw kii nekk diwalu diw mais tu n'es plus là pour pour c'est une question où est le dégg benn Sonko fii benn Idi fii benn Macky fii mais ñoom ñett ñëw ñooñu duñu Sénégal ah ñoom ñett ñooñu duñu Sénégal ce sont des Sénégalais comme nous tous dañ leen wóolu jox leen dara buñ ko mënul nañ fi jógee mais lan la dañ leen defaloon dañ lañ jox confiance faral leen mais su fekkente ni ñoom ñu ngi jéem a di ñu teg ay pion di def ay yenn affaire yu naka su dul noonu parce que lan dañu am yenn information yi parce que lan mais gënuñu muus kenn gënuñu muus kenn xam na lenn rek lañu am ñu bëri ñu leen di liggéeyal mais gënuñu muus kenn il faut ñu defloo suñu bopp ñu xam président la mooy rôle am la lay liggéey ñan ñoo nekk ci ginnaawam il y des milliers de gens pour qui travaillent pour lui c'est pour ça qu'il a plus d'informations que quiconque mais gënuñu muus defal naa ko ma ñëw pardon s'il te plaît pardon s'il te plaît il a été technicien ensuite ingénieur directeur ministre des mines maanaam ruqu ruqaanu suufu Sénégal yëpp xam na ko ñu ne déet nit bu fiy kërëb kërëb yëpp yëpp renseignement yi yëpp jaar na si loxom mu intérieur ñu ne déewaay nga ñëw nekk chef gouvernement ñu ne déewaay nga nekk président assemblée nationale la mu la tënk yow du Sénégal la mu la réer ah mais bàyyi ma ñëw su fekkente ni kooku non déglu ma déglu ma ma ñëw kooku noonu mbat mbabat su fekkente ni bëgg na réewam jóg taxaw day taxaw parce ah, que yaa ngi filmé yo mais su fekkee tamit bëgg na réewam suux kenn du ko ta arrêté léegi population bi nga xam lu mu bëgg quoi loolu moom buy mu lu gars yi di wax mbuus mbuus wëy na xaw ma la xam nga wëy wëy léegi léegi même léegi léegi ko léegi man man fenn laay waxee quoi xam sur fenn laay waxee xam la c'est que benn affaire am gis nga gouvernement dëgg la quoi dem nga loi assemblée institut léegi nga instant Sénégal lu gën a tax sa gars yi du man man sax man man man instant bi man vote loi d'habitation bi affaire bi ànd ma si parce que Sénégal instant moom moo ko wax quoi urgent lañ ne quoi te bu ñu nekkee si urgent xam la dañoo war a gaaw soo xoolee Macky Sall même discours am bi discours am bi ngeen di wax ni dem leen lire discours bi mais lu mu waxoon moom la waxaat lu mu waxoon si la lu mu waxoon avant kii bi avant kii bi di jël décision bi lu mu waxoon moom discours bi benn la soo xoolee soo xoolee soo xoolee soo xoolee même def xool même soo xoolee soo xoolee soo xoolee waaj suñu waaj dafa détaillé xaalis bi koy dugal loolu rek la mais à part ça la ba ñun ñëw mais non mais xam nga état ñoo xam ne ñu xaar ñoo xam ne ñu xaar dañu leen di kat jour bi ñun ñun heure bi la ñuy xaar ak lieu bi mais xaaratuñu ay ñox parce que moom wax ko bu yàgg ñu ne damay jël cent milliards cent milliards laa def fii léegi lii ba mu ñu ko waxee la gars yi seen xaalis ba gars yi commencé seen xaalis xam moom déjà ba léegi depuis 1960 covid 19 bi wax dinaa noo dinañ jël matukaay dinañ est que am na dara lu ñu entreprendre lu commencé dox li ñu commencé jël quoi li ñu commencé def comme la ban góorgóorlu la xam nga loolu man c'est ça qui m'énerve wuy ma loolu moom may métti tàccu bi ñu leen di tàccu wala encouragement bi ñu leen di encouragé kenn waru leen dara ñoom defuñu xoolal li ñu war a def la ñu war a def parce que loolu ñoom ñoo ko war a def xam nga parce que yow benn affaire ñu politique ñu ma xam balaa non ñu politique ñu ma sànq loolu laa noonu xam nga tey xam xam nga tey non xam nga tey xam xam nga tey euh, lu mu toti la loi d'habilitation la loi la loi d'habilitation bu mais jarul tàccu ñu jàpp si rek ngir yàlla may ñu élargi je sais mais Papis Papis on lui paye beaucoup d'argent non defal mais on lui paye beaucoup d'argent pour ça il est logé pour ça du fay courant du fay ndox pour ça il fait son travail mais Papis mais lan la ah, mais quand même quand même fay kuy def liggéeyam léegi dañ koy. tous les moyens pour que mu def liggéeyam da koy reyal tëñ pour lan. non non il fait son travail. deful dara Ablaye li mu def dafa tuuti Youssou li ngeen wax yëpp d'accord mais dama bëgg rek mais dama bëgg ñu delluwaat ci sujet bi quoi El Hadj di nga doon wax léegi léegi xam nga tey li nga doon mooy la loi la loi d'habilitation bi buñ buñ dugal ni xam nga foofu moom foofu mooy nekk maanaam état d'urgence ba su xasee ba am rek Macky Sall su ko neexee mu dem assemblée nationale su ko neexee mën na ma bañ a dem assemblée nationale loolu loolu loolu loi yi moom moo ko constitution moom moo ko kii mais pour rafetal rek pour rafetal rek pour maanaam ñëpp mën a déggoo moom moo tax mu yóbbu loi bi euh, assemblée ñu boole ko euh, ñu voté ko foofu noonu mais tey comme que état d'urgence am na comme waa ji lu nii rek lépp loo xamante ne ne dafa jàmp dañ ca war a jublu Macky Sall amatul amatul droit amatul amatul obligation mu ne day jaar feneen wala mu ne day waxtaan ak keneen wala keneen ak keneen moom moo yore coggalu gu yëpp moom moo yore lenge yi il n'a qu'à faire ce que le Séné ce que de lui maanaam teg euh, teg ay ay ay maanaam ay euh, ay moyens ay ay système ay mesures yoo xamante ne pour mun a daan Covid 19 xam na tey jii nii dèjà def na ay jéego man dama naan ne ji def na ay jéego ndax te su ko neexoon su ko neexoon su ko neexoon mu ne mu ne du dem fenn damay toog jàpp sama ñaambur. te kenn du ko kenn du kenn du kan moo koy kan moo koy kii voté nañ ko il a il a cinq cinq ans quatre ans encore pour pour mun a liggéey. su ko neexoon mën na toog jàpp ñàmbur mais dafa dafa teg ay ay jéego du jël xaalis dugal ko ci kii bi euh, dugal ko ci santé jël xaalis dugal ko fii dugal ko fee dugal ko fee ne pour mën a kii nii non du question non non parce que c'est le moom moomul boppam c'est moo ñoo ko moom naan bu ma neexoon bu ma neexoon non non non man foofu d'accord nekkee président tu es tu es tous les man bi ma dugalee bi ma dugalee foofu bu ko neexoon bu ko neexoon boobu du dugg moom mooy moom mooy déterminer yow sa baat bi nga jël lonk ko jox ko Macky Sall keneen ak keneen noonu la def léegi nag balaa nga koy bilan bi ngay balaa ngay laajte bilan balaa ngay laajte bilan day fekk ne yow mu jeexal mandat ba pare mais tey jii ni tey jii ni tey jii assemblée nationale mu fii nii non waxtaan dañuy waxtaan mais point boobu du ma ci lañ bokk la non ci laa bokk damay wax li may xalaat mu ne la comme par exemple actuellement le président de la république il a été déjà élu par le peuple comprendre nga instant yi nii am na am na mandat bu cinq ans bi nga xamante ne benn année kese la ko def donc il dese na ko quatre ans donc instant yii nii yow président de la république bu ko neexee mu def bu ko neexee mu bañ def te kenn mënu ko dem génnee ji pare quatre ans mi jeex donc c'est ça voilà loolu nag nag tegu si yoon waaw waaw si yoon nag neexee bu demul dafa war a wala tegul si yoon. waaw léegi dafa war a def c'est-à-dire xalaat boobu moom moo waral dugul si bopp sénégalais bi. waaw léegi man fenn laa yoxoon man foofu dafa war a def warul def l'essentiel lu ñu gën a amal solo xam la mooy na jëf mais xam nga léegi léegi même tuuti léegi même tuuti léegi même tuuti léegi fi mu toll nii léegi fi mu toll nii léegi fi mu toll nii léegi fi mu toll nii. Sénégalais Sénégalais yow ci média yi dina noo dinañ jël lii dinañ jël meeg précaution yi mais ba léegi ils n'ont pas encore commencé. ils n'ont pas encore commencé. ils n'ont rien fait waaw. Papis ngir yàlla xoolal maa la ko ñaan ngir yàlla xoolal day dem dimbali ñu nekk fii naan dañuy dugal ak marché arrière dañuy dem dañu bëgg dem dañuy dem dañuy dem suñu bëggul dem ñu toog c'est simple léegi yow yow yow yow ah, en tant que le président de la république ak ministère de la santé hmm. yow yu yaw léegi langa nga doon xaar pour ministre de la santé yow mu def ak sa xalaatu bopp yow. yow si si supposons yow si tu étais le ministre de la santé yow looy def yow. man su ma nekkoon situation fu mu toll man ma pour nekk ministre de la santé. ñoom lañ jiital léegi yow dama la laajte ko jiital yow léegi jiital bi ko jiital lan nga ministre bi mu def instant yi lan laa mu def ci ci lan mu def liggéeyam. waaw léegi ban liggéey dama xam nga comme par exemple. boobu ba léegi laa gis man xam nga la laa gis xam nga seen man liggéey laa gis. lan nga bëgg mu def laa la wax yow moom laa ni théoriquement lay moom laa la expliqué ne waaye moom laa la expliqué ne xam nga lan laa gis si ñoom ban liggéey la ñuy def théoriquement parler rek parler parler on va faire ça on va faire ça on va faire ça mais ba léegi commencé wuñu dara non day commencé lan lañ def waa léegi yow lan lañ def ministre de la santé yow instant yii nii bu naa la non non malade yaa ngi bàyyi moo le xool ministre de la santé lu mu def moom kenn amul amul li ñu koy ngañ amul tax déglu déglu bàyyi wax la dama lay wax waaw yu dama lay wax waaw dama lay wax. mais dama ne li muy wax Papis le problème tu sais c'est quoi tu sais c'est quoi le problème ah signification constitution le gars comprendre ñu. kan moo comprendre lul constitution lan mooy constitution définition. Euh, mais la constitution est la charte fondamentale. non non non du constitution la constitution la constitution c'est une c'est un mécanisme de contrôle pour contrôler l'argent la pour protéger l'argent qu'ils ont volé. avec les terres qu'ils ont volé. selon ta définition loolu mooy selon ta propre définition. loolu mooy constitution loolu moom mooy sa définition yi. xam nga tey benn instant man soo soo gisee soo gisee ma wax la loolu soo gisee ma wax la loolu soo gisee ma wax la loolu daam loo daam lu tax moo tax ma wax ko maanaam euh, soo gisee ma ne la soo gisee ma ne la am am na droit mu def am na droit mu ñàkk bañ a def parce que fu mu toll nii moom mooy le président de la république du Sénégal tey jii nii ñun ñu sommes ces sujets waaw ñun dañuy xool dañuy gëstu maanaam xaalis bu ñu ko jox fii la ko war a dugal fee la ko war a dugal fee la ko war a dugal ndaxte fu mu toll nii état d'urgence lañ nekk on ne parle plus de l'Assemblée nationale ñun dañoo am ay représentants au niveau de l'Assemblée national ñoom ñoo ñuy ñoom ñoo ñuy saytu ñoom ñoo ñuy saytu ñoom ñoo ñuy xoolal suñu xaalis ñoom ñoo ñuy xoolal ndax état bi liggéey na wala liggéeyu mais tey jii nii assemblée nationale boobu ci boppam moom moo fi nekkul c' est le président de la république qui gouverne par ordonnance loolu depuis classe de CM2 sax dañ la koy jàngal su état d' urgence amee c' est président de la république moom mooy jël ndogal moom moo am yëpp sañ-sañ yi moo tax ma ne la tey jii mënoon na mënoon na xool moo xool mënoon na xool yenn lu ko neex mu ne mu ne moo en tout cas xaalis bi comme kenn man lañ koy jox man maa war a décider dama koy jël léegi orienté ko def ay def ay kalma ñangaan ak leneen ak leneen te et puis su boobaa dafay valide ndaxte constitution moom moo foofu looloo tax ma ne la loolu moom moo ko moom moo ko may ndaxte assemblée régime présidentiel la ñu wax. régime présidentiel soo ci nekkee nag yow yow c'est le président moom mooy moom mooy jox ay kii yàlla yàlla nag dañoo may ñu passé ci benn occasion boo xamante ne état d'urgence la kon nag am na yenn yoo xamante ne dañ ko war a di ko xoolaat c'est le président dañ ko war a jox moom moom force Covid 19 bii nii mu mu mettre en place ay ay budget yi mu mettre en place mi 1000 milliards yi nii mu jéem koo doxal en fonction ñun lu bëgg en fonction feebar bi moom loolu moom moo fi nekk ñu génnee ko fi loolu rek moom moo nekk suñ suñ tey amul leneen loo xamante war nañ ko mën a yokk ci loolu loolu rek la. xam la xam nga xam nga dafa am li nga xamante dafa am li nga xamante ne dafa am ñu taxee ñu tey ñu ne ñu de santé xam la njëkk ba daawuñu si liggéey mais avec covid 19 moom wax ngi santé mi ngi def liggéey bu extraordinaire ah. parce que déjà parce que déjà dama lay dama lay ay liggéey yu mu def da ngay déglu dama da ngay déglu ma la ay liggéey yu mu def da ngay déglu parce que jamono ji Sénégal mënoon ñu am lu ñu mënti am jamono ji ci malade gars nañu leen évacuer liggéey nañ defar nañu yoo xamante ne suñu jëmee dañuy tëdd loo loolu la xam luy problème xam luy problème non yu bàyyi ma eggal yu parce que problème mooy ay directeur xam la ñoo taxaw wax ko ñi nga ay médecins ñoo taxaw wax ko ne carrément ma yeggali ba xam nga lan mooy droit son wuy ma Moussa l'état l'état xam nga kaay ma wax la yan droit la am. l'état a droit de man l'état a droit de dire la vérité l'état droit yëpp la am. léegi boo ma nee directeur moo taxaw si télé bi nangam nangam. mais mais yow sànq ba léegi maa ngi koy wax soo indi sa xam-xam soo indi sa xam-xam da nga ko wax par rapport ak sujet yi ñu wax ñu wax ne moom la ñuy développé dès le début. yow li ngay wax li ngay wax li ngay tontu ñu bëgg a wax rien à voir ak débat bi ñuy débat comprendre non man ok non man xam nga instant bi instant bi Moussa Moussa xam nga instant bi nii ma am solo laaj xam nga instant bi lan moo fi nekk xam nga instant moo fi nekk comprendre loi d'habilitation yooyu yëpp comprendre mu waa ji def na ko jàll na ñi ci war a wax yëpp wax nañ ko wax nañ ci ñun liñ ci xam yëpp wax nañ ko parce que boobu ba léegi maanaam léegi débat bi nekkatu indi indi waxaatuñu wax bu bees quoi